gën a xool li xew Sénégal ngeen gën a waxtaan ak autorité Sénégal yi ndax réew mi am dal loolu nag biñ ko defee ñoom wax nañu ñun sax ñoom le 4 août 2023 bind nañu benn résolution muy commission africaine des droits sur le Sénégal pour wax ni seen njaaxle ci situation démocratie bi nu mu daanoo ak tamit liberté yi ni ñu wàññeeko ak espace public yeeg mën a wax sa xalaat ni mu ni mu ni mu ni mu gën a dellu gannaaw ak tam ñi nga xam ne ñu ngi leen denc ci kaso yi ni mu gën a bare ak parti de d'opposition dañ leen pare ñu fonctionner kooku ñoom bindoon nañ ci kaw ñu ne leen nag comme ñoom commission bi war ngeen gën a ñëwaat Sénégal ndax diggante mois d'août ak léegi am na yu bare yu fi xew te tam ñi ngi jëm ci élection bu ngeen ñenee ñëw ngeen mën a dolli seen kàddu yéen tam pour indi fi jàmm groupe bi nag dafa nekk groupe bu commencé formé wu parce que dañu jàpp ni parti opposition yi ci Afrique ñu bare dañu dañu dañu nekk ci ay jafe-jafe parce que ni pouvoir amee noonu la opposition war a amee te opposition dafa baax ci démocratie dafa baax ci réew donc ñu ni donc dañuy taxawal kuréel goo xam ne gii ay parti opposition ñoo ci dajaloo di mën a dem tam ci Union africaine ak ci yeneen kuréel di fa wax li xew te teg ko ci dëgg na loolu moo tax tey ñu daje woon ñoom tam dañuy ñëw Sénégal ni ñu naree ñuy ñëwee ci yeneen dëkk dem nañu Kenya demoon nañu Tanzanie ñu ni dañuy ñëw Sénégal waxanteeg ñëpp wax nañu ak euh, opposition dem nañu assemblée nationale waxanteeg groupe parlementaire yi wax nañu groupe parlementaire Yewwi yi tey ñu ngi doon waxanteeg wàllu euh, démb wax nañu ak indépendant yi wax nañu ak tamit euh, taxawu Sénégal ñu fa woon kon wax nañu ak parlementaires yi nga xam ne ñoom ñoo toogal askan wi wax tamit ak organisation de droit yi nga xam ne yi ñoom organisation de droit de l'homme la yi ne ci Sénégal di saytu àq ak yelleefu aadama doomu aadama waxtaan tamit ak ay ñi nga xam ne dañu nekk ay njiit ci média tey nag ñu ni woon dañu ñëw wax leen tuuti ñun lan la ñu xalaat ak lan la ñu fi jële muy groupe bi euh, soxna si toog mu ngi tudd marta Karua juriste la nekkoon na ministre de la justice ci Kenya nekkoon na ministre ndox d'ailleurs moom sax président Macky Sall mës na ko invité fii ba mu nekkee moom tam ministre affaire ndox mu ñëw fi ci la jëkk a jiwee Sénégal kon xam na ko te tamit nekkoon na tamit candidat élection présidentielle moo àndoon ak Rella Odinga ñu nekk candidat ci élection yi passé te demoon nañu ba ñoom li leen tere woon ñu gañe lu tuuti la woon amoon na sax réeroo ndax ñoom jàppoon nañ gañe woon nañu kon juriste la njiit la ci Afrique borom xam-xam la ñu boole ko tamit suñu càmmiñ li nga xam ne moo jiite opposition bi gën a mag ci uganda yàgg fa doon nekk fa ay candidat lu bare ba tey sax mu am ñeneen xale yu ngeen xam yéen ñu nekk candidat ñu nekk tey Uganda ci opposition bi ñu boole fa tamit ñu jógee euh, euh, euh, Ado Ado Shaibu mi ngi mi ngi jóge Tanzanie ci surtout ci côté bi nga xam ne bi moo nekk ci Zanzibar dégg nga jiite fa parti politique d'opposition tamit am nañ tam beneen boo xam beneen njiit boo xam ne bii tamit Tanzanie la jóge moo jiite parti opposition Tanzanie bi gën a mag am nañ tam euh, MA mi nga xam ne mi ngi jógee euh, Burundi kon groupe bi euh, am na tamit ñeneen ñu nga xam ne yenn de d'opposition ñu ciy bokk si ak ñun mais ñii rek ñoo ñëw saytu senegal waxtaan ak senegal ñu wax nag ni dañu seetlu ni waaw kii ah ok ah ok I gave I did give Aimé Magera from Burundi John Munyika secretary general of Chadema oh, euh, euh, Chadema mooy parti d'opposition bi gën a mag ci Tanzanie ak euh, ak suñu càmmiñ ji Ziga moom moom mu ngi jógee Uganda donc ñu nuy waxoon nag tey dañuy ñëw ngir jaboor ñoom dañu bëgg a ñëw jàng si ci Sénégal xam li xew parce que Sénégal ci ñoom dafa mës a nekk dëkk boo xam ne dañ ko xoolee dëkku démocratie parce que bu ngeen xamee dëkk yi élection yi ni mu daan demee ci dëkk yeneen yi ñoom ñu ni Sénégal kon tey li ñu dégg ñu ko fay dañuy ñëw fii ñu jàng laaj ñëpp wax ak ñëpp loolu moo tax bi ñu ñëwee waxuñu ak opposition rek dañu bind jéem a seet naka la ñu mën a waxanteeg gouvernement bi présidence de la république waxanteeg tamit ministre de l' intérieur laajte waxtaan ak ñoom comme waxtaan ak ñeneen ñi jotuñu nag am chance su gis leen. ba tey sax moom mi nga xam ne moo jiite délégation bi bind na euh, euh, ay ay njiit ci réew mi ci parti au pouvoir pour ñaan leen gis leen mën leen waxta wax ak ñoom wax leen tam en tant qu'africaine lan la ñu xalaat ci mi. ak naka lu ñu bëgg a def mën a def ñoom ba yëkkati seen kàddu ba jàmm am ci réew mi léegi nag loolu bi mu amee tamit ñu ne dañuy ñëw en solidarité ndax solidarité boobu mooy ni ñëw ci balaa ngay mën a xam dara dëgg dëgg nu mu demee nga dem fa loolu moo tax ñu déplacé wu ñëw fii mais dañu seetlu ni Afrique lii dafa dafa nekk ci jafe-jafe yu dëkk yu bare dañ nekk ci jafe-jafe dëkk yu bare dañ nekk ci jafe-jafe wu euh, euh, ou bien troisième mandat wala jafe-jafe wu espace politique wala daal ñàkk ay liberté wala démocratie buy gën a dellu gannaaw di melo ñu ni nag Sénégal yaakaar bi mu am bi ñu am ci moom non seulement Afrique mais ci continent bi yëpp kooku war nañu fexe ba ñu indi seen kàddu jàppale Sénégal ci yëkkati seen kàddu ci loolu parce que ŋàññi nañu li nga xam ne ni moo xew ci continent bi ci dëkk yu bare muy seeni dëkk muy ci affaire gouvernement même ci mbirum koom-koom mi ndaka la koom-koomu africain yi ñu nekk continent bu am alal bu am suuf bu am ndox bu am lépp lu ne ci biir suuf te ñu am nit ñoo xam ne ñi dañu sonn dañu ndóol gi am ay doom yuy génn di daw di jéem a dem ci yeneen continent yoo xam ne lii yëpp am na fi mais mënuñu ko jëriñoo kon problème mu Afrique problème mu euh, euh, démocratie rek problème mu tamit birum koom la mais problème mu xale yi nga xam ne ñoo gën a bare ci continent bi te mënuñu tedd ci continent bi mënuñu jëriñoo alalu continent bi donc loolu dafa nekk euh, mébét boo xam ne bii nii mébét bu ñu seetlu la ci Afrique. beneen bi ñu seetlu mooy nii dañu seetlu ni dëkk yu bare euh, dañu war a tey xool naka la ñu ne en tant que africain naka la ñu mën a xoolee ba am suñu ay solution bopp parce que da ngeen seetlu ni bu élex problème amee ci continent bi ay doxandi mu jóge Europe wala Union européenne ñoo ñëw ji atte élection bu jatee ñoo ñun ñoo ñëw atte te war nañu tey am ay cadre africain yoo xam ni war nañu mën a xool li xew ci dëkk bi ñu xool li xewal seen dëkk lan lañ ko mën a moytoo ñu ñëw ñun tamit àndandoo taxaw euh, trouver ay solution ensemble loolu moo tax ñoom ñu ni lii xew Sénégal daf leen xaw a jaaxal ndaxte gis nañu ay njiit ci opposition bi dégg nañ ko liir nañ ko xool nañ ci télévision yi li fi xewoon yépp at yi daaw ak daaw daaw jéeg ak euh, jànkonte yi fi a jànkonte entre état opposition moo tax ñu ni ñoom seen li xew Sénégal xaw na leen jaaxal loolu moo tax ñu bëgg a yëkkatu seen kàddu ci biir Sénégal ak ci bitim réew pour wax ni jot na pour Sénégal delluwaat jàmm am ci réew mi waxtaan am ci réew mi ñu xool xool naka la ñu mën a eh, ubbee espace démocrate bi démocratique bi ba képp ku mën a wax wax képp ko mën a taxaw taxaw ñu wax nag ni tamit euh, gis nañu ni euh, non seulement euh, opposition yi mais sax espace c'est-à-dire que wax sa kàddu wax sa xalaat muy journaliste muy rek koo xam ne kii de da nga am xalaat rek di ko wax tey jii Sénégal mënatuloo ko am seetlu nañ tamit ni ñu baree baree bare Sénégal tey ñi ngi ci kaso yi te loolu dafa doon loo dafa doon woon lu Sénégal lu ñu ko xamee loolu tey Sénégal dafa nekk record dafa yore nekk pays record ci ñi ñu tëj ci ay kaso te ñu ci bare nekk ñoo xam ne ñii ay nit lañu ci ay politique la ñu doon yëngatu wala ñu nekk ay activiste wala ñoo xam ne sax dañu wax la seen xalaat rek ñu tëj leen te loolu xamee ko woon Sénégal donc ñu ni loolu tamit dafa nekk loo xam ne lii nii ñoom jaaxal na leen moo tax ci bëggee yëkkati seen kàddu tamit wax ko ci ñuy tamit ni. Euh, le fait que rek wax sa xalaat mu mën a nekk mel comme crime léegi c'est-à-dire que prix d'expression wu sa xalaat dafa nekk loo xam ni droit la ak la ak ak yelleef boo xam ne bii déclaration africaine yi ak àddina bi yëpp ñoo ko may doomu adama tant que waxuloo nit ki lu ñaaw saagalo may wax sa xalaat rek waruñu la ci jàpp wala ñu la ci tëj mais dañu gis ni jàpp bi Sénégal dafa bare ñu ñu tamit ñu tax tam wax wax tamit ni am na ñu baree bare bare ñu nekk ci prison yi surtout am na leader opposition Ousmane Sonko bi ne ci prison ñuy wax ne dañuy ñaan ñu bàyyi leader ñi nga xam ne dañ leen tëj ñu pour des raisons politiques la ñu bàyyi leen ñu génn ñu bàyyi itam Ousmane Sonko mu mën a génn candidat bu bëgg a nekk Ousmane Sonko wala keneen ñu bàyyi la nga dem candidaté parce que dañu jàpp ni sénégalais yi ci seen bopp mën nañ leen may autorise possibilité ñu tànn ki ñu bëgg ñoom te pour ñu mën a tànn ki ñu bëgg dañu mën a dangu ñëpp mën a taxaw Sénégal yi décidé kan moo leen doy ñu tànn ko bu leen doy lay bu ëllëg ñu ñu tànn ñu décidé ko jële ko fi donc ñuy ñaan ni nañu nañu nañu nañu bàyyi prisonnier politique yi mais nañu bàyyi opposants yi nga xam ne lañ leen bëgg tere te tamit tere bi nga xam ne dañ koy tere parce que yii yëpp ñoom yëg nañ ko ci biti bi gisaat ko fii nit ñi am réunion c'est-à-dire que tey en conférence de presse boo ko bëggee def dafa jafe boo bëggee louer salle doo ko am boo bëggee Euh, def manifestation euh, pacifique constitution may la ko ñu tere la ko gis nañu rapport yi nga xam ni préfet yee ko bind yëpp yëpp yëpp bare ba bëgg a à chaque fois ñu ni mënuñu la bàyyi nga def manifestation te amul justification te ñu ni donc loolu dafa nekk loo xam di dafa nekk droit wu citoyen sénégal yi parce que ñu ngi ci constitution bi te dañ leen ko tere ñu am ko ñu boole ci tamit ni euh, média yi nga xam ne yii nii gis nañu li xew ci média yu bare ñu ay ay journalistes ñu tëj te ñoom daa yaakaaroon nañ Sénégal ñu fi tëj journaliste yaakaaroon nañ ni tëjum journaliste yeneen lay dëkk lay am mais du am Sénégal mais gis nañ fi tey tëj nañ fi ay journaliste tëj nañ fi ay média suspendre nañu ay ay ay signal te loolu ñu ni loolu lu war a dakk Sénégal te dañ ko war a ti bañ def parce que Sénégal dafa nekk référence ñu wax tamit ni tey jii euh, Sénégal dafa war a dal te ñuy ñaan Macky président Macky Sall ñoom. ñaan ko ni ko na may sénégalais yi espace bu ñu mën a waxee na may sénégalais yi espace parce que nit ki bu mën bu ñu ko mayee ñëw mu wax ñu may ko mu mu mu dox ñu may ko mu ñaxtu ba xalaatam rek dafay daal di dafay gën a yokk jàmm da dafay ubbi espace démocrate donc dañu ne man ñu ñaan Macky Sall président Macky Sall mu ñi ñu tëj ñi mu ñu bàyyi leen ñu ñibbi seen kër mais surtout Ousmane Sonko mu ñu tëj tam ñu bàyyi ko mu ñibbi seen kër pour mu dalal réew mi apaisement mën a am nit ñi mën a dem ci élection ci jàmm ak salaam parce que gis nañ ni ñetti weer a def ci élection yi ba xamuñu ba tey jii bu ñu xool journée yi wala bu ñu ñëwee fi sax ñan ñooy candidats yi te loolu mësuñu ko xamal ci Sénégal élection yi bëgg a jot te xamuñu kan mooy candidat donc loolu euh, doon doon na tam loo xam ne ñoom ñoom ñoom ñoom yëkkati nañ ko ci seen kàddu di ko wax ñu ni nag Sénégal dafa nekk dëkk bu am solo ci Afrique te Sénégal bu amee jàmm dina indi jàmm ci Afrique dina indi jàmm ci Afrique de l'Ouest mais Sénégal bu amee jàmm itam dina dekk exemple ci yeneen pays africain yi ndax daan nañ ko ba ñoom daan nañ ko wax ni ñun ñi ngi am lii jafe-jafe suñu dëkk mais Sénégal xool leen di mu mel kon tey bu Sénégal daanoo dafay daanul Afrique yépp noonu moo tax ñu bëgg Sénégal jàmm ji fi amoon ñu gën ko suuxat ñu gën a ubbi espace de liberté yi ñu gën a gën a bàyyi prisonniers yi ñu gën a ubbi espace d'expression yi parce que loolu la ñu mës mës a xamee Sénégal donc ñu gën ko ñu ñu gën ko ñu ko suxat gën ko yokk ñuy wax nag tamit euh, justice bi àtte bi li nga xam ne lii mooy yoon ñu wax ko te Sénégal ñu xam ñu xamee lu président de la République ak xamee lu Sénégal di ko di lu lu lu yoon wax trois c'est-à-dire que droit bu ñu ko xasee ba xam ba ñu juge ni àtte na àtte juge yooyu nañu ko topp parce que yëg ñu ni juge àtte na mais àtte juge boobu toppuñu ko donc ñoom ñu ñaan Sénégal nañu jox président Ousmane Sonko mi nga xam ne juge wax na ko ñu jox ko. ay këyitam ñi koy permettre mu nekk candidat comme ni ko justice bi waxee te loolu mooy indi jàmm ñuy wax ni tamit loolu jaaxal na leen tere na leen indi na leen ay ay ay ay njaaxarle njaax njaax njaax ay indi na leen jaaxle te dañu yaakaar ni Sénégal war na mën a dépasser loolu avancé parce que dañu bëgg président Macky Sall buy dem mu bàyyi fi dëkk boo xam ne bii dëkk ko jàmm la dëkk boo xam ne bii ni ko ko joxee muy jàmm mu delluwaat delloo ko sénégal yi ci jàmm ak ñu bëgg Sénégal bi président Macky Sall buy def tam mu bàyyi fi bàkk bu baax pour moom ci biir Afrique ak ci biir àddina bi te loolu lu koy indi ci li ñu wax mooy mu bàyyi Sénégal goo xam ne gi Sénégalu jàmm la mu teg tànkam teggi tànkam gën a xoolaat amaat yërmande gi sénégalais ni ñu ko ni ñu yërmande gi ko ak wóoluti gi ñu ko joxoon ba jox ko réew mi mu amee mu am mu delloo sénégalais yi njukkal njukkal delloo africain yi njukkal pour delloo leen dëkk bi nga xam ne dañu ko mës di xool muy Sénégal mu nekk miroir ci ñoom dégg nga muy seetu pour seetu démocratie donc ñu ni loolu bokk na ci li nga xam ne lii ni bëggoon nañ ko wax ni nag président Macky Sall ñi ngi koy ñaan dëkk bi nañu topp nañu delloo si waat liberté civile yi ak liberté politique yi dégg nga espace de liberté yi ñu amoon ñu gën ko ñu gën koy suuxat gën ko yokk gën ko ful loolu mooy ndamam te ñoom bëgg nañu président Macky Sall bu génnee ñu xam ni kii nekkoon na Sénégal ndam lii la fi bàyyi bàyyi na fi dëkk bu stable bàyyi na fi dëkku jàmm moom tamit am na jàmm dégg nga loolu daal la ñu la ñu woon dañ koy wax tey euh, devait le dire euh, en français